sama jàng fi jàngee naa Maroc j'ai fait le Maroc j'ai fait les États-Unis et cetera waaw ah. dem jàngi science économique ak science politique euh, moom laa jàng waaye li may jàngi science politique yëpp daanaka politique moom musuma intéressé noonu surtout Sénégal parce que dama doon seetaan yenn émissions yi di gis ne que du pour nag du par prétention moo tax ma koy wax mais di gis ne daal niveau bi des na parce que dama doon comparer parce que dama doon seetaan aussi émission homme politique français yi ak loolu leen mën reprocher mais maîtrise bi ñu am seen dossier su ma ko comp su ma vraiment c'était c'était vraiment voilà j'étais pas trop intéressé par la mm-hmm. mais nag ma nekk jeune boo xam ne yàlla dafa ma nattu ci dara mooy dama bëgg sama réew dama bëgg Sénégal trop mm-hmm. bëgg tamit samay compatriotes euh, ñu toll ba benn moment euh, ci début mandat président Macky Sall ma mm-hmm. may may gis tout temps yi xew Sénégal ay scandale ay injustice et cetera man ma ne ma posé wu sama bopp question est-ce que am naa droit took rek du ma def dara rek parce que man tout va bien xëy na maa am naa sama sutura maa ngi liggéey et cetera. Mhm. est-ce que dama war a toog rek bañ a participer si ma ne non non loolu du am. Mhm. waaye début bi ma am tuuti réticence nag dugg ci parti politique yi. parce que mhm. parti politique tam dafa am yu mu àndal te des fois ni ñu la yaree ak jikko yi nga am doo bëgg dugg si yenn yi daal ba si ay parti politique. ma commencé ma dugg si benn mouvement indépendant pendant un mois un mois am fa expérience bu bëri ci élection législative. Euh, émission bi commencé gul mais da nga tàng di lu xew. Ah, man xam nag dama sama mbakkan bi tout le temps ah, day. day ñàkk nee dama bëgg sama yaay moo tax. ah <laughs> merci na solo am na solo bu baax. merci man mais man yow Pastef nga bokk n'est-ce pas Pastef les patriotes. waaw fa laa mais nañ ko bàyyi mu jeexal. waaw ok waaw waaw jeexalagul. léegi mu duggee ci mouvement indépendant commencé woon naa sax gis Pastef. ce hmm. qui anecdote bi ma leen bëgg a raconter sax 2015 xaw ma 2016 dama dugg ci page. Euh, Pastef les patriotes boobu maa doon hésité dugg dugg ci politique ma bind leen message ma ne dama bëgg votre parti m'intéresse naka la ñuy def pour am carte mais pendant deux mois kenn kon ma ma ne non parti bi c'est pas un parti sérieux quoi. Mm-hmm. ma bàyyi noonu dugg ci benn mouvement def def politique pendant un mois après ma génnaat si parce que gis naa ay jikko yu ma neexul mais may suivre président Ousmane Sonko di ko gis si débat yi mu élever niveau mm-hmm. boo xam ne su toogee man li muy wax daf may intéressé ma ne kii moom. foog ma dem dugg ci parti bi après si si la sama benn xarit bu ñu naan Ousmane Baro ñëw en quelque sorte recruter ma ñu tase si benn benn assemblée générale association citoyenne bu ñu doon def mu ne ma non yow foog nga ñëw ci parti bi ci laa dem premier jour bi may ñëw di jënd si sama carte ancien siège u Pastef bi nekkoon Yoff tase ak président Ousmane Sonko ñu waxtaan affaire bi gën ma gën ma dugg noonu laa duggee Pastef waaye je n'étais pas du tout te tamit mu nekk loo xam ne xëy na ñii politique Sénégal sax man ak ñu mel ne man ñu bëri si biir Pastef on n'avait pas ce profil là mais yàlla def na nag ci lañ mujjee ba léegi ñu ngi si di si di si góor góorgóorlu. balaa Ablaye di poser question man li ma la bëgg laaj mooy euh, est-ce que amoon nga benn politicien bu la doon inspiré à l'époque nga ne vraiment ce gars-là en dehors de son courant. Mhm. est-ce que amoon na koo xam ne ne gën na la jox envie nga ne da ngay politique. au Sénégal bëriwul. amoon na élection 2012 boobu j'étais jeune ah j'avais 22 ans. amoon na ku ñu doon wax euh, Ibrahima Fall je crois mu nekkoon taxaw temm je crois son parti s'appelait baa biñ mm-hmm. su bi ñu def ay campagne yooyu ñu koy wone télé et ni ma ko gisee mu muridee tey di wax ay affaire xam-xam ça m'avait intéressé déggoon naa sax benn jour président Ousmane Sonko mu ne 2012 kooku la voté loon voilà ah. man nag 2012 daanaka voté parce que choix yi kii mais su ma doon voté yaakaar naa kooku laay voté moo ma xawoon tuuti inspiré mais si Sénégal a des hommes politiques ki m'ont inspiré par leur parcours je vais pas être original ah ku ci mhm. mel ne Thomas Sankara xëy na fekkewu ma époque mais lire naa ay livres waaw xool naa ay documentaires yu ñu def si moom ku ma intéressé la ku si nen ne Nelson Mandela mhm. histoire bu mu bu mu bu mu incarné et tout et tout ak ñoo xam ne sax xëy na bokkuma gis-gis ak ñoom mais au moins pour seen réew am na loo xam ne euh, incarné woon nañ ko Euh, ci seen ku si mel ne euh, John Fitzgerald Kennedy wala Nixon et cetera. malgré scandale bi ko dab ci après. mais je trouvais que c' des gens qui avaient l'envergure de la fonction man ça m'a toujours intéressé politique. Mhm. ces hommes là moo moo moo moo tout le temps. intéressé waaw j'ai aussi comme que dama doon jàngale science politique lire naa ay livres yu bëri sur la révolution russe ñoom Lénine en passant ba ba si ba si ñoom euh, Brejnev ñoom Gorbatchev ba si Poutine mi sax. j'ai lu parce que l'histoire de ces hommes politiques là ak eh, réew yu ngand yooyu ñuy diriger. Mhm. ak ni koy diriger man sama m'a toujours ça toujours intéressé que ce soit positif ou lu ma intéressé woon donc si si si yooyu laa. tu es passionné de ça quoi yow tamit. waaw je suis passionné de l'histoire de l'histoire politique et de l'histoire économique du monde loolu ma passionné la mhm. loo xam ne dama siy gëstu ba léegi nii daanaka mënuma dem tëdd nelaw sans jël benn livre boo ah xam ne je damay arrangé wu toujours balaa may tëdd jël benn une heure de temps xam naa tey moom du <laughs> mais damay arrangé wu toujours jël benn une heure de temps lire quelques pages ça me permet tout le temps de voilà xam loolu dafa am solo. donc toi tu aimes lire. j'adore lire. est ce que lire nga livre Yérim Seck. non xam nga que ça soit dans la vie dans la politique wala dans la lecture nag dama am ay standard man. Ah. am na yoo xam ne moom mënu ma ci wàcc. donc ah man je je j'essaie de maintenir un niveau. quand même da nga ay choix. dama am ay choix. Yérim bi da nga yaakaar dafa baax. non man du ma non parce que du ko xam ne euh, naw naa ko te gaw ma ne livre bi je l'ai pas lu mais am na si groupe yu ma bokk yu bëri nit yaa ngi ciy waxtaan gaw ma ne ça eh, que waroon essayer aussi lire ba pare parce que. non non du ma ko lire après nga soog a ñu wax. non ñam c'est-à-dire da nga dama dama la wax nit yi wax a ah. ki ko bind intéressé wu ah, ma ne am na xam-xam. lu am solo loo xam ne mun na ko wax ci ci histoire u Sénégal. d'accord très bien Ablaye. waaw ouais, d'accord bon euh, avant tout d'abord euh, damay saluer vraiment ci lu mu wax. Mm. parce que ça se voit que dañuy gis ay jeunes yuy engagé wu ci wàllu politique. te gis lii dégg lu mu lu mu wax dem jàngi jee bitim réew ñëwaat. Euh, di suivre benn homme politique. Mm. xam nga raxu lii lay wax réew mi toll na foo xam ne léegi ndaw yi. Mm-hmm. dañoo jël seen euh, destin euh, en main. Mm. xam nga engagé wu ci politique. du benn homme politique bu tax tey jii nii ndaw yi dugg ci. Euh, damay commencer sax si ñi nga xam ne ñoom laay gis tout le temps si terrain bi. Euh, Bassir lu mu wax vraiment lu ñuy lu ñuy lu ñu ñoo ngi lay vraiment encourager ci ci chemin boobu noonu mais li ma lay laaj d'abord mooy euh, bi nga demee ba ñëw yaa ngi ko doon wax léegi-léegi da nga xool discours Ousmane ko nga déglu ko ci lu muy incarné nga bokk Pastef les patriotes déjà pourquoi yow nga choisir Euh, Pastef les patriotes xaw ma xaw ma nag ndax tontoo nga si question boobu noonu parce que xam tamit choix bi est-ce que war nga yem rek ci discours bi la Ousmane Sonko jox pour ngay pour nga pour mu doy la en tant que intellectuel intellectuel exactement euh, lan moo la poussé c'est quoi le déclic bi nga xam ne moo la poussé tey nga dugg parti Pastef les Patriotes. tout à fait loolu question bu bu pertinente la. Mhm. mais xam nga avant parti euh, Pastef les Patriotes que ñoom même bi ñuy tàmbali seen parti bi la bokkoon comme que sénégalais yu bëri bi ñuy commencé xamuñu woon Pastef il fallait ñu xam ko d'abord. parce que parti bi Ousmane Sonko moo ko doon incarné bi ñu ko créé ba pare moom la ko dénk donc moom il fait d'abord connaître donc man avant sax may xam Pastef les patriotes donc dama sóobu d'abord ci discours am xool parcours am lan laa gis comme que man ku ku ku nawlu nit ku jub laa dama mhm. gis parcours am c'est vrai que nit suñ la ne Sénégal kii liggéey na impôt et domaine rek dina am tout de suite lu ñëw sa xel impôt et domaine mooy lan mhm. xaalis fi xaalis mënuñu la génneel ne Ousmane Sonko moo jël lii si xaalis wala dara déjà loolu c'est quelque chose qui me plaît parce que man nit ku jub daf ma neex naturellement loolu daf ma xool parcours fi mu jaar ni mu demee impôt créé fa benn syndicat malgré que régime mu Abdoulaye Wade bëggul woon loolu mu xeex ba syndicat bi tegu ma ne kon kii il a du courage il la conviction te il se bat pour ñi muy liggéeyal donc mu nekk lu ma neex aussi. ma gis ni muy defee politique comme ni ma la ko waxee sànq ñëw ci plateau yi di génne xam nekkul si di dàgg sante ñëw di expliquer fiscalité di ko expliquer d'une manière boo sénégalais lambda yi mun nañ ko comprendre di expliquer économie ma ne kon kii naw na xam-xam te man comme que man euh, daanaka taalibe murit laa di sëñ Tuubaa waxoon ci nit mooy xam-xam liggéey ak jikko yu rafet ma gis ñett yooyu ci moom ma ne nag léegi naa dem xool lan mooy Pastef c'est très facile da ngay dem si site internet bi lire lan mooy idéologie Pastef mm-hmm. lan lañ gëm déjà le que man dama considérer ne que bëgg sa réew si jaamu yàlla bokk pour man farata la mook julli juróom ñooyam pour man donc loolu loolu amul kii bi ma liiree affaire Pastef gis nag biir Pastef ma ma gis ay nit yu fa commencé dugg ñoo xam ne bokkoon naa ak ñoom bi ma nekkee xale école te musuma xalaat sama àddina dinañ politique sincèrement ça les intéressait même pas ay nit yoo xam ne xam naa leen ci valeur et tout ça m'a encore plus poussé à mais idéologie comme que bi may jàng jàng naa ay idéologie politique def ay études comparatives et cetera gëmoon ne que idéologie ñu ñuy gëmloo Afrique ay socialisme libéralisme c'est pas quelque chose qui marche mhm. souvent avec nos réalités mhm. ma gis Pastef bi ma liiree seen seen doctrine gis si loolu mais c'est quelque chose qui m'a profondément attiré ak gis moom transformation il en fait dafa teg baaraamam ci li ci ci problème yi am Sénégal yëpp ci wàllum suñu structure économie nu mu tëddee ci wàllum suñu institution yi nu ñu tëddee et cetera problème yi si am si wàllum justice ci wàllum pouvoir hyper pouvoir yi président de la république am. yooyu yëpp mu nekk yoo xam ne man daf ma mus a ci laa ne nag su may engagé wu vraiment Pastef rek laa mun engagé wu c' est en fait qui me ressemble le plus et Ousmane Sonko li muy kaas li muy wax si plateau yi man bi ma nekkee sama kër defuma politique defu dara loolu moo nekkoon sama xol donc. la rencontre s'est faite euh, naturellement. si gisante gisante ngeen après ban ban ban moment ngeen gisante yow Ousmane Sonko. non gis na wax na ko sax. au début mooy bi may njëkk ñëw di jënd sama carte. ah ok boobu nga ko gis. dama ñëw rek fekk muy hmm. wàcc. on a discuté mu ma expliqué lii laay def et après on s'est vu plusieurs fois on a parlé c'est quelqu'un que voilà que je respecte beaucoup si leadership am ak ci ci courage am ba léegi fi ñu toll nii yéen ñëpp xam ngeen tout ce qui s'est passé ces dernières années ça suñu gëm-gëm ci projet mais renforcer aussi suñu respect bi ñu am bi ñu am ci moom te moom tamit mu delloo ñu respect boobu Mhm, mhm. Euh, léegi yow euh, loolu c'était bien avant l'éclatement de l'affaire Adji Sarr est-ce que si diggante bi yow Ousmane Sonko bi nga xamoon démb ak Ousmane Sonko bi nga xam tey ci wàllu discours est-ce que amul dara lu ci changé parce que yaa ngi wax discours am effectivement ñun ñëpp Ousmane Sonko bu muy door fekke nañ ko. mun nañu wax ne ay ñoom Tanor Dieng sax yu yàgg lañu wala ñoom Moustapha Niasse mais Ousmane Sonko moom suñu kanam la dooree politique est-ce que tey jii nii euh, Bachir yow gisoo ñaari nit yu wuute ci wàllu politique. non Ousmane Sonko changé na et ça c'est très bien il a changé. en bien en et en positivement du ma en bien parce que il était c'était déjà une très bonne personne à mon avis ah. loolu sama mhm. sama appréciation la. mais situation yi mu jaar ak parcours bu mu def depuis depuis euh, création Pastef en 2014 2016 bi ñu ko bi ñu ko dàqee fi mu doon liggéey plus fort reste 2018 bi livre am. Mhm. te 2STV euh, année boobu defoon ko en direct. élection présidentielle yi mu jaar de troisième ak yi ñu teg Pastef yëpp injustice yi ñu teg ak bien sûr l' affaire que vous venez de citer yooyu yëpp yooyu yëpp mais su changé wul nit doon dinañ ne kii xanaa du nit kese c' est normal daf ko changé mais ça l'a renforcé dafa dafa tax sénégalais yi xam benn xar kanamam boo xam ne xëy na avant xamuñ xamuñu ko woon. mooy le courage le leadership ak ak gëm carrément fi muy def ni fi muy jëm nii lu ñu ko mënati teg moom jaral na ko mu mu mu continuer si chemin boobu. mais le discours le de l'homme a changé Bachir. mais ça dépend lan nga lan lan nga bëgg a wax ci loolu maintenant ce que les ce qu'on xam ne amu ko woon en en en 2016 2017 waaw contexte bi moo changé xam nga nag xam nga nag contexte contexte moom su changé faw discours changé xam nga discours bi ñuy créé PASTEF 2014 nekkuma fa woon mais am na ñu bëri ñu ma raconté histoire bi boobu ce c'était des fonctionnaires yoo xam ne gis nañ ne que système bi doxul ñu bëgg ko changé mais dugg si politique de manière assez naïve mun nañ changer pour ñoom da ngay politique jot sénégalais yi voté la rek nga dem ñun ñi de manière naïve loolu laa yaakaaroon man mhm. musuma xalaat ne dinaa dugg dinaa dugg politique ay injustice ak ay ay wax yu wax yu bon ak yooyu yëpp di ñu dal man musuma ko xalaat dama tegoon damay ñëw nii rek si plateau yi meeting su jotee ma dem meeting wax ak sénégalais yi sensibiliser élection su ñëwee ñu voteel ñu gagné mais on s'est rendu compte que ñun euh, quand tu de changer un système système bi tamit day révolté wu day bañ te lépp lu mu am si doole da koy teg donc contexte boobu la ñu teg dans un boo xam ne mun naa ne et sincèrement je n'exagère pas parce que ñun ñi ngi ci biir ñi ngi koy dund c'est contexte boo xam ne ay ennemis lañ ñu teg guerre lañ nekk di def contre ñun donc contexte boobu su changé wul Ousmane Sonko dinañ di war na war nañ war nañ xoolaat suñu bopp mais bien sûr que daf ko changé son discours est plus musclé mais son l'essentiel c'est que principe yi mu nekkoon avant fi mu ñu tegoon fi mu ne foofu la bëgg yóbbu Sénégal musul changé courage bi ak leadership bi ak xam bi ba léegi ba léegi mi ngi fi maintenant nag le contexte fait si xeex lañ nekk dañu jàkkaarloog régime boo xam ne ils veulent notre mort il faut le dire très clairement duñ fi nekk nag di comme ni ko suñu grand Dame Mbodj di waxee di layam layam yi duñ fi nekk tamit di noyal il faut que tamit ñu won leen ne que ñun on est lépp lu ñu pare ñoom pour yàq suñu projet moo tax mu ne gatsa gatsa pour waaw exactement moo tax tànn boobu ñëw gatsa gatsa ñun pare nañ pour tamit suñu projet antu donc gatsa gatsa jour effectivement meetingu Kër Massar bi ko waxee on était tous avec lui yow bi ngay dugg yow gatsa gatsa amul woon léegi garsa garsa am na ba ba tey jii nii nga ne yow Ousmane même Ousmane Sonko boobu changé na mais tey jii nii yow en tant que intellectuel am na am na lu war a changé si yow Basir lan moo tax nga des fi ba léegi am na lu tax koo xam ne léegi garsa garsa lay wax li ngeen bëgg ba ba bañu ma ko si am na certainement yow est-ce que amul quelque part foo xam ne am nga benn déception si sa leader. non pas du tout on a tous changé man mii di wax ak yow na bon je ne suis pas une personne importante ou quoi que ce soit mais man ma duggee PASTEF. année bi ma fay dugg ak léegi Bassirou Kébé boobu bokkul ñi ma xam ñiy discuter ak man même sama famille xam nañ ne léegi ni may waxee même si les principes n'ont pas changé li ma gëmoon laa gëm ba léegi mais discours bi bokkatul. pourquoi mais parce que contexte bi moo changé je l'ai je l'ai je l'ai mm-hmm. bi may dugg ci politique je le faisais je dama dugg avec une certaine comme ni ma ko waxee sànq. Mm-hmm. pour man damay politique rek. Mm-hmm. jeex na ah. aw nekk moo fi di xeex nekk moo fi di xulo et cetera mais su ma demee ba ba bokk ñi ma bokkal parti gis injustice yi ñuy teg. mais su ma doon cité injustice yi ñu teg Pastef yëpp mais y en a eu man j'étais là bi ñuy dem kër yaay Ousmane Sonko di jël parrainage j'étais j'étais bi ñuy rey Mariama Sagna j'étais là bi ñuy attaqué suñu suñu siège ak ay ak ay nervi j'étais là bi ñuy accusé président Ousmane Sonko de de viol yu ak ak yeneen ak yeneen yeneen ak yeneen donc loolu yëpp man su deful dara ci man am na benn benn benn affaire bu mu def ci man bien sûr parce que je suis déjà koo xam ne naturellement dama bañ injustice léegi injustice boobu avant dama ko daan dégg rek ñu ngi koy teg ay sénégalais léegi je le vis directement donc comme que je le vis directement mu munu nekk kenn koo xam ne dafa indifférent donc je vais me battre pour que injustice boobu teñ en commençant par Pastef et aussi pour tout le Sénégal donc loolu ça fait effectivement sama discours léegi dafa gën a offensif c'est c'est normal est-ce que yow am nga relation ak Sonko boo xam ne ne tu peux s'asseoir avec lui et parler avec lui tête à tête. c'est déjà arrivé mais man mais un jeune boo xam ne. Mhm. ndax ma dama doon gis avant jeune parti yi dañuy dugg ngeen baal ma ci expression bi. waaw nag bugguma wax mais nekk comme genre ni gars di wax coggu. topp benn leader. solol ko ay t-shirt truc man awma mentalité yooyu man Ousmane Sonko yaakaar naa ne je le respecte il me respecte comme ni mu respecte ñëpp mhm. bugguma sax kii bopp parce que man je me considère comme un militant je n'ai pas besoin par exemple chaque jour gis Ousmane Sonko mhm. wala dem buntu këram Ousmane Sonko pour wax la këram ah kon da nga je dis pas au contraire ah, parce que tous les jeunes que je connais à Pastef conviction moo leen dugal te balaa noonu xam ne loolu am na mooy président Ousmane Sonko ñëwoon tey changer discours di wax lu président Macky Sall di wax boobaa nga xam ne ñun topp ñu image u Ousmane Sonko mais li ma bëgg a wax foofu c'est pas pour comparer ak ñeneen li ma bëgg a wax foofu mooy nga man je n'ai même pas besoin de voir Ousmane Sonko tous les jours man damay liggéey je dans le mouvement des mm-hmm. mm-hmm. ba tey ba sànq en matière d'habitat et d'aménagement noonu la ko yeneen commissariat yëpp di defee mhm. donc sama xam-xam parti bi daf ko soxla Ousmane Sonko soxla ko ko dama ko koy jox su amee sama sama sama jikko en tant que citoyen même en dehors de Pastef que je me comporte normalement fu ma munti dem mhm. Mhm. parti bi dafa soxla parce que ñun loolu la jaay su ma ñëwee fii bëgg naa ak lu mu bon bon su ma génnee ngeen ne ah Bassirou Kébé de moom ku correct la il bien représenté constitution moo ñu ko may aussi parti bi boobaa daf ma soxla bu boobaa nag su jotee protéger président Ousmane sunko dama koy def boobaa ay intellectuel yëpp dama koy teg fële loolu dafa war a leer. man bu bu wàcc si terrain bi jotee. dama koy def sànq maa ngi lay wax kër président Ousmane Sonko xam kañ laa xam fu président Ousmane Sonko dëkk. Hmm. mooy jour 8 février bi ñu ko. bi ñu ko njëkkee convoqué. jour boobu dama dama laajte ñu ñu ma Google Maps. ne ma fii la dëkk musuma sax lijjanti fu mu dëkk. mais on on s' est plusieurs fois c' quelqu'un que je respecte. Hmm. et que. Euh, en pas fini ma question. parce que li ma bëggoon laaj mooy parce que léegi maa ngi dégg nga naan daan ñu leen di daan mooy apparemment on le lâche pas xam nga gars yi dañ koy attaqué sans arrêt. Mm-hmm. maintenant nee nga loolu yow c'est pas normal euh, boo gisee man laaj la question bi parce que sénégalais dañ jàpp ne c'est vrai que. Mhm. dañ koy accuser lu bëri mais le fait que Ousmane Sonko dem fekki aji Sarr c'est-à-dire dem ñu koy maase foofu la sénégalais yi waxoon ne. pourquoi il est parti là-bas boo gisee man ma lay wax loolu sax dama ne est-ce que yow ça t'est arrivé de lui poser la question mais pourquoi il est là-bas parce que man wax du jàll mu gisoon. xëy na ma laaj ko question boobu. bon man sincèrement. pourquoi il est parti là-bas question bi je pense que nag depuis deux ans. on l'a loolu bett na ko de. on l'a <laughs> mais mais mais mais sincèrement. est-ce que non mais après on va changer parce que y a beaucoup de choses yi nga xam ne war nañu ko mën a waxtaanee. man c'est une question boo xam ne man xëy na bu ma gisoon naa ko laaj la pourquoi partir là-bas quoi c'est-à-dire parce que c'est quelqu'un quoi dans ce pays. Hmm. alors que ne foofu euh, voilà c'est c'est c'est après ñu avancer quoi. <laughs> yow à ton avis. Euh, est-ce que question boobu mës nga ko laaj wala parce que man j'ai envie de savoir ça. moo xam naa da ngeen bëgg émission bi gën a neex rek mais man question boobu je pense que. bi mu jotee woon. président Ousmane Sonko est sorti si dimanche ba. waaw le dimanche 7 euh, février. su ma juum def discours am tontu na ko ba sénégalais yëpp comprendre. ñu doon dute xëy na si ñu doon dute xëy na si 3 jours la. waaye bu mu ko génnee tontu man nag respecté naa. Ousmane Sonko yaakaar naa ne. Mhm. su ma juumul xëy na sama sikkim bi moo tax mais man je suis très jeune yaakaar naa ne sama papa sax lu muy màggee Ousmane Sonko bëriwul respecté naa son Ousmane Sonko président Ousmane Sonko ba du toog nag di ko laaj yooyu surtout que jox na ma explication. man bi mu ma joxee explication yi man loolu doylu naa si après mhm. dans deux ans yi passé gis ngeen plateau yi. ci wax wala wax. li si boobu la ma jox mooy explication comme yow ni nga ko déggee man noonu laa ko déggee te man loolu ça me suffit. complètement parce que je sais que c'est un homme véridique bi mu toogee dimanche boobu wax li mu wax. Mhm. man loolu laa jàpp te ba léegi loolu laa jàpp te les preuves. Mhm. yi mujj enquête bi ni mu demee preuve yi ñu génn yëpp wan na il avait parfaitement raison donc il m'a donné lu tax mu dem faak yooyu il a dit man yooyu du ma taxaw du ma toog nag. di ko laaj xalaatuma ko euh, bi nga ko déggee taj parce que man xam naa ñu bëre ñoo xam ne aussi bi ñu ko déggee am na nu euh, ko déggee di na la la na la la def. mais nakaar bien sûr mais parce que je me suis dit que man bi ma ko déggee je vous je vous assure que li ma njëkk a xalaat doy est que dem na faak dem fa li ma njëkk xalaat mooy que suñu projet bii de ñu ngi mi ngi waaj ñu ngi koy ngi koy bëgg naxasal loolu laa njëkk a xalaat sama sama tiit si projet bi la. mais naxasal si non ci complot bi complot bi am après mais loolu da nga yàq d'accord complot ils ont dañuy essayé waxuma ne que mën nañ ko parce que avant la sortie waxul woon complot ils essaient non mais bi nga ko déggee laa dama ne ah. tout suite avant sax complot di génn tout mm. suite ah suñu projet bi donc ça va en danger su dee su dee lii ñu koy wax te man j'avais je n'avais pas instant yooyu éléments yi mais j'avais le pressentiment que mhm. non lii am na lu si am na lu si dugg mais après bu mu génnee wax après ma gis preuve yi après ma gis ñoom capitaine Touré génn wax mhm. ma gis euh, borom salon bi Ndeye Khady Ndiaye génn wax mais ça m'a renforcé dans mes convictions te depuis deux ans je pense que ak enquête judiciaire beeg yëpp gënu ñoo mën a dellu naa si ginnaaw au contraire dafa gën a renforcer dama la bëggoon yëngal tuuti rek non xam naa loolu parce que non xam naa sax dugg foofu parce que sànq dafa am lu ñu waxante lu ma la wax avant may dugg si émission bi <laughs> vu la quoi nga génne benn benn fuite on sait jamais parce que xam nga Ousmane Sonko dafa bëri ay ndaw yu ko topp waaw ñu bëri doon vraiment ñoo xam ne ay borom xel lañu di xalaat dëgg la

moom lu baax la en général dañ lay ñëw rek actualité ñoom sa parcours et tout intéressé leen mais sama parcours su ma koy wax c'est pas mm-hmm. en fait pour ma personne mm-hmm. mooy que jeune yi mel ne man ñëpp nga xam ne am nañ benn échantillon représentatif ci biir parce que nga xam ne peut-être ñu bëri comme man la parcours boobu la am loolu moo intéressant ñu xam yan profil ak yan façon jeune ñoo dugg biir Pastef ak lan moo leen fa dugal. loolu moo loolu moo am solo. gis nga Bassirou li ngay wax nii man daf may fàttali parce que quand même j'ai j'ai à Paris j'ai beaucoup de jeunes étudiants yu doon ñëw sama boîte di baal si. ba pare di ñëw restaurant ba. donc su ma daan gis xale yi. di leen déglu dama doon am mbégte ak fierté. parce que dama ne xale yi ñuy gis ñuy ñëw fii di jàng. ñii am naa yaakaar ne ëllëg dinañ téye réew mi te buñ ko téye dina am changement. Mm. incha allah te tey moo tax su may dégg ku mel ni Bassirou ak ni ngay waxee suñu xel mën na dal te je pense que ni tôt ou tard ça va changer parce que aussi xale yi amatuñ complex ci tubaab amatuñ complexe ci lenn ndax jàng nañu am nañu lu ñu xam te li leen ñor mooy réew mi mais pas des trucs personnels et sa vraiment c'est important de le souligner léegi damay ñëw ci li nga xam ne ne moom mooy actualité muy la baisse quand bees bi ñu wax euh, les prix du loyer da nga xam ne ni euh, ñu ngi nommé Momar Ndao dañ ko renouveler encore ouais, ouais, à confiance du nga xam ne ne moom moo nekk à la tête de la présidence de la commission de régula régularisation euh, yow baisse des prix comment tu le vois comment tu vis ça waaw xam nga état dafa am euh, ay mesures yoo xam ne da koy jël yoo xam ne yii soit c'est conjoncturel mm-hmm. maanaam mesure la yoo xam ne ci moment bi rek nga koy jël mais amul effet yu gudd. Mm-hmm. wala c'est structurel da ngay changer carrément euh, domaine boobu ngay ngay jëlee ay mesures nan nu muy doxee. Mm-hmm. mesure bi damay fàttali Sénégal rek ni que 2014. Mm-hmm. jëloon nañ même mesure. est-ce que def nañ évaluation ba xam li xew ak loolu. damay ñaan ñi ñuy déglu te nekk ay locataires. xam nañ bu baax li may wax. est-ce que baisse boobu ça a vraiment été effectif am na ñu ko def parce am na ay bailleurs yoo xam ne jub nañ respecté nañ loi mais majorité bi ils l'ont pas fait au xam ne sax dañ ko gis comme opportunité pour génne seen locataire pour utiwaat utiwaat ñeneen c'est c'est c'est c'est c'est c'est grave donc c'est une mesure conjoncturelle xam nga pour kenn kuy def politique suñ la ne euh, bes na euh, bes am na nga ñëw si plateau naan non bes baaxul loolu déjà c'est même pas quelque chose de loo xam ne peut-être am na nit yu bari mën nañ ko dégg donc ce n'est pas ça le problème toute baisse dans boo xam ne day yokk pouvoir d'achat sénégalais yi. Mhm. lu baax la te ñun ñëpp xam ne location mooy premier euh, euh, domaine bu dépense su. Mhm. ki nga xam ne voilà kër la. Mhm. premier poste de dépense am. mooy location su su weer wu dee ñun ñëpp xam nañ ko. location bi ngay njëkk a ngay njëkk a teg dokkone donc soo ko baissé bien sûr c'est une bonne chose mais problème bi mooy que et c'est c'est dans tous les domaines comme ça avec le président Macky mooy que ce sont des mesures populistes yoo xam ne du am njeexital te dina dañ toogaat fii dans quelques mois ñu ngeen ñëwaat di defaat débat si loolu ne finalement baisse bi ça a été un échec déjà tu ne peux pas faire une baisse def benn politique ba pare évaluer woo ko lan moo dox lan moo doxul lu tax lii dox lu tax lii doxul pour man 2014 bi sincèrement gisuma ko te man je suis très bien l'actualité de l'habitat surtout l'habitat social mm-hmm. parce que si si si loolu laay liggéey dans le mm-hmm. Pastef même mm-hmm. donc man loolu évaluation boobu bu bu bu profonde boobu. Mhm. gisuma ko gis naa rek ay façon seen séminaire yooyu ñuy def et cetera. Mhm. donc loolu amul li ñu bëgg a xam le problème de de dëkkuwaay Sénégal dafa gën a profond lii suñu si doon suñu si doon wax sax ce serait quelque chose d'historique ça ça démarre même avant l'indépendance politique d'habitat social yi amoon état bi dafa amoon une vraie politique d'habitat social si lañ créé lu si mel ni SNHLM pour les bas revenus créé SICAP pour les revenus un peu moyens. Mhm. mais politique boobu. ça s'appuyer sur nit yi nga xam ne am nañ salaire mooy cadre yi liggéey ci ci secteur public bi ak cadre yi liggéey ci secteur privé bi et cetera. Mm-hmm. y avait une taxe boo xam ne dañ ko créé woon sur l'habitat après ils l'ont supprimé ils l'ont remplacé par le TRIMF et cetera. Mm-hmm. donc ñu ñëw ba si dans les années 70 80 avec euh, la crise pétrolière après ajustement politique d'ajustement structurel yi état bi désengagé wu. parce que amoon nañ sax banque bu doon finance BHS par exemple qui avait ce rôle là état a désengagé wu tuuti d'habitat social bi politique euh, politique social boobu ñu xaw si désengagé wu ba euh, banque yi léegi di financer rek yenn ñi nga xam ne ils sont solvables am nañ capacité euh, am kër wala fay ko sur plusieurs années te loolu sax ñun ñëpp xam nañ ne que c'est pas la majorité mm-hmm. des Sénégalais mm-hmm. si eeru Ablaye Wade il y a eu des lois sur l'habitat social et cetera mais il y a aussi un peu la pagaille promoteur privé yi ñëw y avait pas d'organisation plan de planification exode rural bi tamit surtout fin temps wu a bëri nit yi ñëw Dakar y a pas eu de plan d'urbanisme ou bien on les a pas vraiment respectés ñi dëkk fu leen neex et cetera ñii di tabax tam nu ñu leen neex et cetera donc tout ça sont des problèmes et état bi daf xalaat ne sa population dina yokku temps nan laay def pour loger leen et cetera donc loolu état bi mhm. état bi dafa nekk état boo xam ne daf si lajj parce que li ma lay wax ni ce sont les problèmes profonds parce que mënoon naa ñëw rek ne la bés mais nii nii et cetera mais il faut connaître ces problèmes profonds là pour pouvoir l'étudier problème bi ñu am Sénégal muy répercuté wu ci ci prix de loyer yi mooy déjà état Sénégal dafa am manque de maîtrise foncière état Sénégal tey mënuñu la wax foncier bi ñaata la foncier muy que ce soit le patrimoine bâti le patrimoine non bâti terre yi fi nekk et cetera mënuñu la wax exactement ñaata la kan moo occupé lii ki fa occupé lan la fay def. Hmm. nan la ko valoriser lan mooy capital bi et cetera ils sont incapables de le dire parce que ils n'ont pas de maîtrise foncière parce que amuñu prérogative ay dóorkat yu bëri itam ngeen baal ma si la ñuy si la ñuy mhm. profité et cetera. Mhm. yooyu yëpp day répercuté après si prix yi parce que ñiy def spoliation foncière notamment dans le domaine immobilier euh, di tabax di fa blanchir seen xaalis et cetera ils n'ont aucun intérêt à di louer lu yomb et cetera loolu dafa am Sénégal on beneen problème bu am Sénégal on importe tout même fer bi nga xam ne ñun am nañ ko dañuy dem di ko di ko uti di ko importer. Mhm. tous les matériaux de construction. Mhm. soo xoolee bulletin trimestriel yi ANSD di def da la koy wax ni matériaux de construction yi di yokkoo parce que on les importe aussi on n'a pas d'industrie locale de construction te loolu on devrait l'avoir parce que am nañ main d'œuvre bi Sénégal am na ay maçon am na ñu xam bâtiment am na ñu xam matériaux yi et cetera mais y a pas d'industrie pourquoi y a pas d'industrie parce que toutes les politiques d'habitat social damay ñëw ci habitat social d'abord yi ñu def mhm. y a pas ma ne woon damay def benn 2000 damay joxe benn exemple rek Sacré Cœur foofu sax amatul espace waaye Malika je sais pas peu importe da fay def ay 2000 maisons soo nee 2000 maisons yëpp ils auront les mêmes fenêtres même type de maison les mêmes fenêtres les mêmes. Euh, même menuiseries cetera. Mm-hmm. nga pousser Sénégalais ñu créer industrie kenn Abdoulaye ñëw ne man damay damay defar ay fenêtres. Mm-hmm. tout de il a la masse. il va mm-hmm. il va faire 1000 fenêtres. il va faire 1000 portes il va faire 1000 cuisines. kii def menuiserie bois def aussi 1000 et cetera. ça te crée tout suite une industrie locale. loolu. mooy booster économie. Mhm. au contraire ñun dañu am économie boo xam ne dafa tertiarisé mais loolu tamit le fait que amuñu matériaux de construction yooyu qu'on importe day day day impacté aussi. Mhm. si à la fin sur le prix de l'habitat social et cetera. bi si topp on n'a pas une politique de logement social locatif dafa am habitat am na ñoo xam ne mun nañ jënd kër dem leb banque fay ko sur plusieurs années mhm. mais logement locatif social moom moo gën foofu sax ngay gën a pousser privé bi ñu ñëw aussi investir si. gis si seen bopp état bi mun a garantir. le loyer bi locataires yi war a fay par des par des tey jii on a FONGIP FONSIS on a le euh, la cour nu mu tudd pas la cour le euh, caisse de dépôt et de consignation et mais malgré tous ces mécanismes là on n'est pas encore capable de faire cette, cette politique de logement social locatif la boo xam ne dafa a permettre sénégalais yëpp am toit bu ñu dëkk état bi financé ko ce qu'on propose ce que man li ma xalaat mooy que suñu amee gouvernement bu bees incha allah. Mm-hmm. l'habitat social le logement locatif social que sénégalais bi am toit mhm. soit une priorité nationale mhm. il faut que ça devienne une volonté de l'État pour am ko te y a les mécanismes tout ñun ñu ngi siy liggéey suñu programme xëy na mënuma dévoiler lépp balaa waa waa kër ñàkk jàmm di si di si di si di si cof tuuti mais on a ce programme là boo xam ne on sera capable de fournir après nag faut dire la vérité pour nga am kër foog aussi nga liggéey foog nga am revenu ça ça le cadre global d'une politique économique endogène boo xam ne dañuy industrialiser dëkk bi le secteur industriel va prendre l'avant on va transformer les produits qui viennent de l'agriculture créer de la plus-value créer des chaînes industrielles dans tous les secteurs loolu beneen affaire la mais en tout cas on a on va faire de ça une priorité nationale pour sénégalais yëpp mun ko comme que attendant euh, douze mois yi dese président c'est bien si c'est appliqué et que sénégalais yi gis seen bopp c'est bien mais ce sera je parce que c'est une politique taf tafal taf yëngal pansement la c'est pas une politique qui est réfléchie et qui a été évaluée. mais vraiment Bassirou tu es bien carrément. la mais mais mais man mais mais Ablaye xam ne di nga ñu dugal ñun bon peut-être dafay. non maa ngi jégalu nag si kii bi xam nga su may wax des fois damay bëgg di expliquer xëy na xëy na sama wolof bi kiiwul trop. non li nga wax kay ñëpp comprendre man sénégalais bi nga xam ne mi ngi toog këram. Mhm. sama classe. Mhm. mu leer na mën a bu weer deewee ak li ma gis am na wàññeeku bi ci am su ma waree fay ñu ne ma sewaay am nga bees hmm. xam nga kooku bu déggee sa philosophie bi danaan mais sawaay lan lay wax mais pourtant si loolu laa njëkkee dama ne une baisse c'est une bonne chose loolu laa njëkk ah. en fait man j'aurais aimé aussi ak loolu ko cof rek c'est-à-dire nga loolu mais ça c'est vraiment il est temps là. non je t'ai nga ko cof rek. c'est-à-dire yow yow wax na sa sa man dama la ak bes bi euh, yow peut-être euh, xaw ma nag locataire nga wala pas mais sa bailleur dina ñëw ne la baisse nga kontaan. mais xaalis bi naa ko dugal fen mais dans quelques mois. dina ñëwaat. yokkaat affaire bi. wala nga bëgg a demee non dëgg parce que moo am en 2014 dama laaj ñu bëri ñu nekkoon locataire 2014 bi loi bi amee ba pare. waaw bi ñu fexe ba génnee ba nga ne da déménager par exemple. toi même tu verras les man conséquences yooyu laa lay avertir rek. Ah. mais que bés bi nga gis ko ci sa pouvoir d'achat c'est très bien mais dama lay avertir ci conséquences. bi gis nañ ko leen ñëwoon am na leen boobu. mais loolu la wax c'est une politique d'habitation en ngay. Euh, nan laa ko mun waxee impact bi nga mun a am. sur une baisse globale ba habitat dootul cherati. waaw